su ko seetlee nuyu naa la Ousmane. baa <laughs> ngi lay fay aussi di nuyu di nuyu sénégalais yi nga xam ni ñi ngi ñuy teewlu di am ci jëpp mbégte ak kontaante di rafetlu. Mhm. teewaay bi nga xam ni teew naa ko ci plateau bi. Ousmane li tax suba doo li tax tey wuy jiwoo. waa ñëwuma maa tey parce que am na yoo xam ne nekkuma ci mhm. nekkuma ci ay caaxaan mhm. man kenn duma jël di ma këlli-këllee eh, ak di ma wër a wërëwërale parce que ku ne gis na li nga xamante ne bii moo xew. Mm-hmm. Ousmane wuy na ñaari yoon ñu dóor ko fetal dóor ko lu ne. Mm-hmm. ay garde am ñu kii leen gazé ko. Mm-hmm. Euh, ba sotti ma loo xamante ne bii kenn xamut produit lan la. yooyu yëpp defe naa ni sénégalais yi teg nañ ci seen bët. comme que nag amul benn juge boo xamante ne bii mën ngaa fexe ba gendarmerie du ñëw barricade sama kër. amul kenn koo xam ne mën naa bàyyi gen fexe ba gendarmerie bàyyi ma ma dem sama yoon ci jàmm ak salaam. Mhm. boo amul benn juge bu ko mën na garanti daal damay toog fi nga xamante ne fii mooy fii ci sama kër jàpp sama njàmm. déw mais yow yaa ngi Casamance toog. maa ngi Casamance waaw. ñoom bu leen neexee mën nañ laa fekk fu na jël la. waaw nañ ñëw bu ñëwee jël si ma. maa mhm. en tout cas daal man daal déw ma. Mhm. waaw buñ ma jël see nag ma xam ne dañ maa jël si. waaye dem moom defuma ko. voilà bi tamit waroo dem. Euh, man li la wax kañ leer na. bu ko doon dem benn li nga wax yow ko ci Kër Massar. Mhm. donc le 16 ak le 17 laa yemale. Mhm. ak le 3 ak le bu la woowee doo ma ne dew ma parce que li nga xamante ne bi noonu la ma justice teg. Mhm. defe naa ni xam nga ko yow mii sax dëggal nga ko ba jooy ci. wane ni justice. ci jëmmi boppam yow. kañ laa ci jooy. yàgg nga cee jooy. Ah. parce que nee nga bi ñu tojee sama vitre dangaa ngaa jooy. waaw loolu waaw loolu comme kon ni nga jooyee noonu mooy wane ni nga àndal maa koy wax gendarme yi di leen wax ne waaye soxna si man àndal. gendarme bar bar nga àndal bëgg. waaw waaw leer yi nga neex a bëgg ndax ñëpp bëgg ku seetlu kii. Mm, noo gisee nag ki nga xam ne rek moom moo di Barthélémy Dias ak euh, ki nga xam ne moom moo di xalifa dem nañ ci wuy ji li nga xam moo di dialogue président Macky Sall bi. waaw comme que moom doon toog daan waxtaane ngay wax euh, Khalifa Sall ay wax yu baax daal. waaw xam nga comme que nee na moom dina wax. nañ ko déglu ba mu wax rek moom Barthélémy. waaw nee na day wax ak askan wi. donc sénégal yi nañ ko déglu. Mhm. Euh, attentivement te bàyyi ko xel. Mhm. déglu li nga xam ne moom lay wax. Mhm. parce que Barthélémy tamit maire la. rawatina maire u Dakar. buy def dara defe naa ni invité ci président. Mhm. loolu nekkul loo xamante ne bii rek war naa tëb ñu tëb tëb dal ci kawam. waaw ah, très bien merci nañ ko déglu ba mu wax. merci beaucoup Ousmane mu nekkoon Ousmane Sonko.